Dream Valley, un projet lancé au Sénégal pour la valorisation de la mangue locale, piloté par un jeune Sénégalais, Dr Pape Djibril Faye. visé de ah. damay suqali mango bi. dama leen di. maanaam 2029 ma jël dëkk bi. bu ko defee 2035. dina fekk dina fekk ma taxaw quoi ma gën a taxaw man nag damay loi Sénégal. <laughs> C'est en ce sens que Dr Faye, avec sa délégation, s'est rendu dans la zone des Niayes. muy président coopérative Sokopa bu Kër Moussa ak nag euh, équipe bi nga xamante ni bi yàlla def na mu xooleen fii tey ñu war fi dalal suñu benn partenaire ñu koy wax Djibril fay ak ñi mu àndal Djibril nag yàlla dafa def mu xamante daaw yàlla def amul yéene liggéey mais yàlla Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Dream Valley Docteur Fay et ses partenaires ont initié un projet national d'exportation de la mangue locale en aidant les producteurs à passer de l'agriculture à l'agrobusiness. Il y a 1500 ans, il y a 1500 ans, il y a 1500 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Il y a des gens qui ont vu, il D'accord.

waaw loolu moo nekkoon uh, kii bi quoi waaw mais ñun daal comme ci mang ngeen di ngeen di yëngu te ñun loolu mooy suñu suñu activité principale te dafa bari ay jafe-jafe quoi surtout ci mbirum weñ yi parce que daan perte yu bare quoi bu commencé bu tawee rek moom mu commencé bu nawet bi xawee hier iya, sur lah bon dinañ ma mat mais su tawee une semaine après rek eh. affaire yi commencé def ay yàq-yàq. ngeen yóbbul ko suñu client xanaa loolu simple na buñ koy joxoon ku jàngul sax mu def ko mais tappale. mais tappale bi doo tojal yàq bi. mais ça non non dama leen di historique bi dama koy wax pour mu pour mu gaaw. c'est important parce que ngeen xam. Euh, par rapport à ce nouveau projet-là que euh, c'est après euh, de dures réunions. Après cette étape, la délégation s'est rendue aussi à Pout, où le doyen M. les a accueilli dans son champ. Là aussi, le constat est le même. Les producteurs ont manifesté la volonté de travailler avec le projet. Dr Fay s'est engagé à les accompagner, surtout dans la lutte contre la mouche des fruits. Après de longs échanges entre partenaires et producteurs, la délégation quitta tard dans la nuit cap verdagar